Uh,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 destinée de toute cette nation. Le président Ousmane Sonko, vous le voyez acclamé comme à son habitude par les populations giguinchoroises qui l'estiment, qui l'apprécient et surtout en train de sortir pour l'acclamer, l'applaudir et le montrer toute leur affection et surtout toute leur admiration par rapport avec, euh, toutes ces batailles qu'il a eu à mener pour le Sénégal. Et au-delà de Giguinchor, je rappelle Giguinchor qui est la capitale du sud du Sénégal, dirige le chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, 24 euh, mars 2024, il est 9h, le président Ousmane Sonko euh, s'ébranle avec, euh, sa, avec euh, sa, sa, caravane, avec son convoi pour aller voter. Comme vous, comme vous le voyez dans, euh, dans ces images, les Sénégalais, les Giguinchorois sont fiers, et les, ils sont fiers de ce qui, est en, ce qui est en train de se passer, parce que c'est la consécration d'une lutte acharnée qui a été menée depuis euh, au moins trois ans, depuis 2021. Euh, le président Ousmane Sonko porte sur ses frêles épaules et surtout la vision d'un peuple souverain, la vision d'un peuple de liberté, la, euh, la vision d'un peuple qui souhaite exprimer son devoir citoyen, ce droit de vote et surtout euh, pour qui, qui exprime, qui a exprimé à plusieurs reprises à travers des manifestations qui malheureusement euh, ont enregistré des morts, euh, exprimer ce besoin-là et ce devoir-là hein, euh, de choisir leur président. Le président Ousmane Sonko, comme je l'ai dit tout à l'heure, acclamé acclamé par ses citoyens anonymes, lambda, ses compatriotes, ses concitoyens euh, ici à la ville de Ziguinchor. Vous le voyez, les gens sont, les gens sont heureux, les gens sont heureux, les femmes euh, sont sorties. Euh, donc, euh, ce que euh, on va on va dire euh, en wolof maintenant. Euh, daanaka mi ngi noonu le président Ousmane Sonko mi ngi noonu ànd ak ñi nga xamante ne moom moo di caravane convoi bi jóge këram pour dem voté ji di fàttali nii rek tey bésu mbégte la tey bésu ndam la ndaxte bésu ndam weesuwul ni président Ousmane Sonko ñu ngi koy fàttali ci ñaari yoon euh, euh, génne woon nañ ko ci liste électorale yi ci ñaari yoon manoeuvre nañ pour mu bañ a bokk ci élection yi ci ñaari yoon manoeuvre nañ pour moom mu bañ a voté sax ba muy bokk ci liste électorale jamono jooju eh, jàmbeeg pexeem yàlla ak dogalam yàlla bi président Ousmane Sonko gëm mu jàpp ne euh, tey président Ousmane Sonko yàlla delloo ko ay droit même donte ne dafa am ci ay loi yu mu jaar tey mi ngi nii fièrement kont ànd ak kontaan ak ndax te tey bisu ndam la ci moom liñ ko tere woon moom lay dem di defi nii nii nii nii nii te ñi ko tere woon ñoom ñoo fi nekk di ko seetaan mu koy def ànd ak population Ziguinchor ñu ngi noonu génn kontaan nañ ci seen maire kontaan nañ ci seen doom ndaxte tey président Ousmane Sonko dafa def ay sacrifice yu prison njabootam ñi ñu bëri wàññeeku nañ ci ñu bëri rey nañ leen ci ci manifestation yi ñii ñu daw ko ji ñu doon ay exilé ñii ñu téye leen prison comme président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi leen téye woon prison jamono yi ñoo ngi nii di dugg nit ñi kontaan tey président mi ngi nii ay war a dem vote ji voté ji ndax sénégalais bu nekk am nga droit voté voté ji ndaxte sénégalais bu nekk am nga droit choisir sa président voté ji ndaxte boo nekkee ci réew boo amee lu la naqari da bàyyi ba vote jot nga def ko président Ousmane Sonko ci loolu la tegu tey mu di bésu bànneex yaa ngi seen waa Ziguinchor neuf heures moo jot nit ñaa ngi kontaan ci weeru koor nit ñaa ngi ànd ak bànneex mu wane ni li vitalité la la bu am solo la te président Ousmane Sonko mooy tey mooy nga xamante ni tey moom mooy incarné loolu la moom mooy incarner tey ce besoin la cette liberté là cette ce satisfecit là des Sénégalais ñoo ngi nii ak si nañ ci école bi président Ousmane Sonko ànd ak Guy Marius Sagna ànd ak honorable Ramaboya ànd ak tout son staff de communication et de sécurité ñi nga xamante ne fekkee nañ xeex yëpp xeexu Mbacke ba le meeting de Kër Massar le rendez-vous de Mbacke ak li nga xamante ne moo di euh, Parcelles Assainies yooyu yëpp mu ñëw ci le blocus de Ziguinchor la manœuvre de Kabé Sendou, la caravane de la liberté de Sédhiou, les 55 jours de barricade à la cité de Kergourgui, les 37 jours de grève de la et enfin les six mois de prison d'emprisonnement illégal arbitraire du président Ousmane Sonko tey bésu ndam la fu bëri fu bëri la jóge fu sori la jóge li ma fi lim yëpp président Ousmane Sonko mi ngi nekk ca kanam mi ngi nekk ca kanam ci xeex ba ci mu ngi nekk ca kanam ak njabootam tenir tête wane njàmbaarte wane li nga xamante ni moom moo di euh, nguure ndax euh, moom moom ci loolu lañ ko xam nitu dëgg dëgg dafa neex boo newee ci dëgg doo ragal xoolal ma xale yi Ziguinchor xoolal ma niñ ko toppee xoolal ma ni yaram daw na wallahi yaram daw na j'ai les que c'est une consacration c'est une consacration aujourd'hui c'est jour de fête la démocratie mais pour le président Ousmane Sonko qui s'est pour exercer ce droit de pour exercer ce droit en tant que citoyen il est le président Ousmane jour la faim il est le l'homme de la manœuvre de Kabembe il l'unique l'unique président Ousmane Sonko exceptionnel. Il a toujours été exceptionnel. Il a su mener des batailles pour l'intérêt général. Exceptionnel. Il a su mener des batailles pour que le peuple sénégalais puisse retrouver sa souveraineté et surtout puisse avoir le choix et surtout exercer, euh, euh, son de choisir son président, le président Ousmane Sonko, comme à son habitude. Exceptionnel. Il est là. Eh, Il est là. C'est un jour historique. C'est un jour historique. Il faut comprendre cette émotion. Il faut comprendre euh, ni nit ñi mel mbégte bi ñu àndal ndaxte xeex xeex la xeex bu sore sori la jóge xeex bu metti la ñu jóge que président Ousmane Sonko tey mu war a ñëw mën a voté koo xamante ne ci benn at génnee nañ ko ñaari yoon ci fichier électoral bi ñu ko yow doo voté waaw ñaari yoon ñu ni ko doo vote ñaari yoon ñu génne ko ci fichier électoral ñaari yoon justice dox ko dëgg ñaari yoon état du Sénégal mu ne du ci dal tey jàmbeeg pexeem yàlla ak dogalam yàlla dogal na président Ousmane Sonko mi ngi noonu di ñëw di voté ji di natt votel doomu ndeyam ki nga xamante ne moom mooy son homme de confiance mu di le président Bassirou Diomaye Diakhar fay c'est la c'est le triomphe même de du projet Pastef les patriotes aujourd'hui tey ku nekk fi nga toog war nga mën a am contentement tey ku nekk fi nga toog nit ñi war ngeen mën a gën a euh, fier ngeen génn ngeen dem voté ji ndax président Ousmane Sonko a tant sacrifié, les patriotes ont tant sacrifié, les Sénégalais, les simples populations, les populations ont tant sacrifié. Vous voyez cette marée humaine, mais surtout toutes ces gens, tous ces gens qui sont là, toutes ces personnes venues de partout, vous voyez ce mur de presse, ce mur de presse qui est là, parce qu'il faut immortaliser une consécration. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la consécration de la démocratie sénégalaise, la consécration de euh, l'homme sénégalais, du citoyen sénégalais. Ça sera exceptionnel ici à Ziguinchor. Et je rappelle que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, mi ngi déjà ci yoon bi jëm Ndiaganiao pour dem voter ji waaye fii nii à 9h tey président Ousmane Sonko moo ñëw mbooloo mee bëri. mbooloo mbooloo mbooloo mee bëri ñaa ngi ci weeru koor président ñu ngi génn pour dem voter ji mi ngi noonu mi ngi noonu on imagine on imagine c'est quelque chose qui sera pas facile waaw ce sera pas facile à

ngeen seen noonu ñu ci oto bi tout je disais affaire baa ngi noonu Alors bëgg rek lañ koy def bon, c'est bon. C'est bon, donne, donne. C'est bon. Président Ousmane Sonko lay jàkkaarloo xool bi lay jàkkaarloo parce que ci ñu bind kii bi quoi ci ñu bind élection asalaamaaleykum mi ngi noonu le président Ousmane Sonko qui s'apprête à venir euh, exercer presse presse eh presse Sonko qui s'apprête à exécuter, à accomplir son devoir citoyen. Vous voyez, c'est le, c'est le président salle est remplie de journalistes, une cinquantaine de journalistes. Une, une cinquantaine de journalistes. Thank you. mi ngi noonu mi ngi noonu mi noonu le président mi ngi noonu le président Ousmane Sonko qui le président Ousmane Sonko qui s'apprête à accomplir, à accomplir son devoir citoyen président Ousmane Sonko qui se fait enregistrer comme euh, tout citoyen, tout électeur, la vérification Ousmane Sonko, vérification faite. Ousmane Sonko qui est dans la liste électorale. C'est une autre consécration aujourd'hui, vérification faite, il est dans la liste. Faut que vous bougiez, s'il vous plaît. Pourquoi vous bougez Je vous Je suis la communication. Il est là. Il est là, en train de faire le choix, le choix des bulletins, le choix des bulletins et tout le monde tout le attend le président Ousmane Sonko toujours aussi taquin et le président Ousmane Sonko qui est en train de choisir euh, les différents bulletins qu'il est en train de prendre le choix des bulletins le choix de le bulletin qui est en haut le bulletin de Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il place euh, à la première la première place il va il va s'isoler comme on dit non, non, non, non, non, non, non, Ne le tirez pas. Mais il ne peut pas. <laughs> Mais xër ba bëgg ko fa quand même. Kan la. Bon, le vote, il est secret quand même, même si on devine. Comment allez-vous? Les gars, ils veulent, ils veulent filmer juste dans l'isoloir. <laughs> Non, c'est bon. non na ñëw ba fii le président le Sonko le président Ousmane Sonko qui place son bulletin l'enveloppe il place l'enveloppe c'est bon à l'intérieur le président Ousmane Sonko a voté le président Ousmane Sonko a voté reste à tromper en il signe, il signe à voter. Il reste l'encre, l'encre, l'encre, l'encre, l'encre. Le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko qui remercie le bureau, il a voté. Il a voté. La presse. Point de presse, Oui, Abdoulaye Bopp, voilà donc La déclaration, c'est ici, la presse, la déclaration, c'est ici.

mooy

eh waay s'il vous plaît waay eh waay vraiment vraiment. Diallo. Diallo. Jamal, Jamal, mel ni

La presse, la presse, la presse. Oh là. Laissez la presse travailler. Laissez la presse travailler. Voilà. La presse travaille. Doucement, doucement. Taisez-vous, le président de la République.

entier de notre programme, du programme du candidat Bassirou Diomaye Faye, euh, la réforme de l'État et de l'administration, pour que les injustices cessent et pour que plus jamais l'État ne soit détourné de sa véritable mission, celle de servir le peuple et non pas celle de servir des causes politiques. Ceci, ceci dit, j'ai dit que c'est une journée qui démarre dans, avec ce constat triste, mais qui va se terminer dans la joie. parce que je suis convaincu qu'à l'issue de cette journée, Inch'Allah, notre candidat, Bassirou Diomaye Faye, sera largement élu, et dès le premier tour. Et cela est, d'autant plus évident à nos yeux que nous observons une forte affluence des Sénégalais, de la diaspora et de l'intérieur du pays. Je crois qu'on n'a jamais vu une telle affluence dès les premières heures du scrutin. Et nous savons que cette affluence-là est due particulièrement à notre candidature. Et cette affluence est particulièrement jeune aujourd'hui. Ils avaient chantonné partout que ces jeunes ne voteraient pas. Et nous nous rendons compte qu'ils sont massivement venus dans les bureaux de vote dès 6 h du matin, 7 h du Cette affluence est également général les femmes, les personnes âgées. Et nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette journée, la victoire sera éclatante. Et que ce soir, Inch'Allah, à 21h, nous aurons les premières tendances qui montreront que le candidat Bassirou Diomaye Faye passe à plus de 50%, à largement plus de 50% euh, du suffrage. Vous avez certainement eu des échos au niveau national. Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir Pour le moment, nous, on ne nous a pas encore signalé d'incident. En tout cas, pas d'incident majeur. Nous souhaitons que cette journée se déroule de cette manière jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas d'incident, que les Sénégalais Ils vont le faire parce qu'ils comprennent les enjeux. Contrairement à ce que les politiciens de l'autre bord croient, les Sénégalais comprennent les enjeux. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de montrer que le mensonge, la roublardise, l'argent sale ne l'emporteront jamais sur la vertu et la vérité. Et les Sénégalais démontreront que les, les vertus dont on s'est paré depuis longtemps, en Wolof on de Djom, de Foule, de Faïda, de Coléré, que tous ces, toutes ces vertus-là soient encore présentes au Sénégal et que les Sénégalais sauront faire la part des choses. Et que aucun lobby étranger également ne choisira un président de la République. Et c'est pourquoi nous allons lancer encore une fois cet appel-là pour demander aux Sénégalais de continuer à sortir massivement. Nous souhaitons que le taux de participation de cette année soit un taux de participation record depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'on puisse dépasser les 70 ou 75% de taux de participation. Ce sera indicatif pour la légitimité du président que nous allons choisir, c'est-à-dire le président Bassirou Diomaye Faye. Nous lançons cet appel-là, mais nous lançons également un appel à la vigilance, particulièrement des jeunes qui continuent d'organiser les rondes et les brigades de surveillance et de sécurisation des élections. On a vu ce qui s'est euh, qui faisait état de Bissau-Guinée qui aurait été transporté par des acteurs politiques locaux pour venir voter au, Séné euh, au Sénégal. Nous avons toujours dit aux jeunes que c'est à vous de prendre votre destin en main et de sécuriser ces élections en organisant des brigades de surveillance et en refusant qu'un étranger, et par étranger je ne parle pas des gens qui sont établis au Sénégal depuis longtemps et qui ont leur nationalité en bonne et Mais je dis de gens qui ne sont pas d'ici, qui sont transportés par des cars, qui traversent les frontières gambiennes, sénégalaises, euh, euh, euh, ou mauritaniennes pour venir voter au Sénégal. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités pour l'empêcher par tout moyen possible. Parce que c'est une élection du Sénégal, par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Et euh, au calme, à la sérénité. En tout cas, nous n'avons aucun intérêt à ce que ces élections soient perturbées parce que nous allons les gagner, s'il plaît à Dieu. Je dois lancer un appel pour, pour éviter de répondre aux provocations. Nous savons que dans certaines zones, particulièrement dans le Baol, dans le département de Mbaké, le plan c'est de créer des provocations pour qu'il y ait des rixes, pour qu'il y ait euh, des affrontements et que les autorités en tirent des conséquences pour euh, demander la suspension du vote. Nous demandons à tout le monde de garder son calme, sa sérénité. Et nous lançons un dernier appel au ministre de l'Intérieur pour qu'il sécurise les Sénégalais qui doivent venir voter. Ça ne doit pas être des jeunes, en principe. Mais si l'État est défaillant, les citoyens prendront leurs responsabilités pour sécuriser leur vote. Et nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur que toutes les dispositions soient ça et là, des nervis soient recrutés pour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 kon ñu ngi leen gërëm leen sant waaw mi ngi noonu kon euh, président Ousmane euh, Sonko voté na ba pare fi nga xamante ni moom moo di eh, euh, école des bu amul centre de vote habituel mi ngi noonu. noonu président Ousmane Sonko euh, voté na euh, ba pare jamono yi nii euh, mu ngi war a fi nga xamante ni moom moo di këram message bi leer na moo di alerté na ci tentative de fraude yi nga xamante ni yenn ñi ñu ngi koy def avec l'importation de votants venant ci frontière yi gis nañ Ziguinchor démb ay bisaawu ah ñu dugg dugg xale yi ñu leen si doole fi dugg leen voté ba pare daax leen euh, gis nañ ci itam ay yeneen image yu jógee Fuuta ñaa ñi ay Mauritanie la ñu jógee ak affaire yooyu noonu jamono yii nag euh, mën nañ wax ni euh, président Ousmane Sonko dànkaafu na ñi yor organisation élection yi ci situation boobu donc loolu moo gën a tax nag moom mu wax loolu waaye ñu ngi noonu nit ñaa ngi noonu mbooloo bi fees del ñu ngi noonu président waaw Sonko daanaka na ba pare voté na ba pare di fàttali ni vous pouvez suivre le vote du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur les plateformes de la coalition mais aussi de Pastef la page président Ousmane Sonko la page euh, euh, coalition Diomaye Diakhar Faye donc ñooñu ñëpp mën ngeen leen di suivre président Ousmane Sonko voté na ba pare léegi euh, mi ngi war a euh, dem euh, rejoindre këram Pardon, pardon, pardon. na taxaw na taxaw na taxaw na taxaw waaw da ngay taxaw sinon damay gis waaw mi ngi bi génn na di gunge président Ousmane Sonko askan bi génn naa di gunge président Ousmane Sonko mi ngi voté na léegi voté na léegi ba pare ginnaaw bi gi mari Sagna voté voté na ba pare waaye message bi bu leer la mi ngi alerte ci importation de votants yi mi ngi alerté ci produit yi nata waaye mi ngi appelé itam le président le ministre de l'intérieur à la responsabilité mi ngi woote jàmm ci élection yi mi ngi naan njaboot gi bu ñu topp provocation yi diggante Mbacké ak Diourbel nañu focus ci élection yi voter sécuriser le vote daanaka président Ousmane Sonko mi ngi noonu président président Ousmane Sonko mi ngi noonu président Ousmane Sonko mi ngi noonu oto bi taxaw na am ñu muy saafonteel waaye askanu jigéen soor a ngi noonu dañoo nammoon seen maire di fàttali nekk di président voté na daanaka ba pare ginnaaw bi Guy Marius Sagna voté voté na ba pare fii nii ci école des jeunes fi bu jigéen soor ba nga xamante ne fii la tàmm di voté chaque année fii lay ñëw waaye ren ji daa voté ba pare dankaafu ministre de l'intérieur ne ko amal sens de la responsabilité nga xam ni c'est l'histoire orange orange mi ngi noonu président président Ousmane Sonko nee na alerté na ci li nga xamante ne moo di euh, importation li ñu naan importation ama ci marchandise lañ ko xamee woon njaboot gaa ngi noonu daw nañ xoolal waa Ziguinchor nit ñi dawee di topp président Ousmane Sonko ci koo xamante ne daa voté ba pare waaye daa mel ni jubilé ba dawr na daa mel na jubilé ba door na fii ci Ziguinchor macha allah macha allah président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko nee na nañu. na force de l'ordre yi def seen liggéey ci mbirum importation importation d'électeurs yi nga xamante ne gis nañ ko muy ay tentative yu leer yoo xamante ne dañ ko documenté fii nii ci Ziguinchor benn leaderu Benno Bokk Yaakaar moo fi am habitude di indi ay euh, nit ñoo xamante ne Guinée Bissau la ñu jógee pour ñu voter waaye démb xale yi brigade de fay bi def ci liggéey bu am solo intercepté leen nangu lu ñu yoroon bàyyi leen ñu ñibbi delloo leen Guinée Bissau gis nañ lu ni mel itam fële nga xamante ne moom moo di euh, Fouta ay euh, électeurs yu di Mauritanie gis nañ ko itam ci frontière u Gambienne bi président Ousmane Sonko woon na les de l'ordre ñu def seen liggéey pour sécuriser le vote waaye itam woon na su jeunesse su Sénégal ñoom itam ñu liggéey ci loolu mi ngi noonu na de heureusement heureusement ba contraire bi amul quoi Thank you. Nadab. Oumam Nadab. Mon cher, jël sa téléphone ay jëlal sa téléphone ay image ay image. ah ma coupé la ma coupé la ma waaw baadoola tey nag moom oto bi oto bi rek maa ngi tey nag moom damay glissé rek nag di rek weeru koor gi la waaw baa def nii waaw mi ngi noonu yéen ngi xool là au loin cette foule cette jeunesse déterminée qui accompagne le président Ousmane Sonko de retour de son vote dem voté ji dellu si ñu gunge xale yi di jubilé ànd ak yow malgré que ñoo ngi accéléré yéen a ngi seen xale yi ca ginnaaw ñu ngi noonu président Ousmane Sonko voté na ba pare fii nii ci Ziguinchor ginnaaw bu Guy Marius Sagna voté ba pare président daal di euh, dànkaafu ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo di euh, yenn acteurs politiques yi nga xamante ne ñi ngi nekk ci mbirum trafic de fraude ak fraude électorale yooloo président soor a ngi nii askan bi génn na askan bi kontaan na ñu ngi noonu Ziguinchor a ngi noonu nit ñaa ngi noonu nee nañ ko jeex na lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal ey ku mën na def ku mën na def ku mën na woote mu ni day dem vote ji telle heure xool ndax askan bi dañ ko toppee ni borom Ziguinchor borom Sénégal borom Ziguinchor borom Sénégal borom la tanière du lion de cité Keur gi borom Ndakaaru le molla de cité Keur Gorgui le président Ousmane Sonko di imam di président di maire président Ousmane Sonko Ziguinchor a ngi nii Ziguinchor delloo ko njukkal ci ku dem voté ji ba ñëw rek dëkk bi mel ni dëkk mel ni fii ku di góor war nga yeewu di sant président Ousmane Sonko ku farul ak moom waroo def fii politique fii nii jamono yii nii Ziguinchor la Ziguinchor la Ziguinchor la Ziguinchor la président Ousmane Sonko ngay visité. voilà. mi ngi noonu président Ousmane Sonko di ñëw fi nga xamante ni moo di euh, centre de vote mi ngi noonu centre Amat Bari avec le président Ousmane euh, Sonko euh, fii nag bilan d'étape la rek dafay ñëw def fi benn visite bu ndaw boo xamante ne juste en tant que Euh, ki nga xamante ne moo di responsable fii nii à Ziguinchor euh, doit itam rencontrer euh, des daal di xool daal di xool nu mu demee rang yi da ngeen def nii sécurité bu ñëwee day métti def da rek gars yi di pam pam de donc président Ousmane Sonko ñëw ci centre Amadou Barry juste benn visite euh, boo xamante ne da koy euh, def rencontrer les observateurs aussi euh, qui sont sur place ginnaaw bi mu voté fële nga xamante ni moo di école des jeunes filles mu woote waat def appel bu am solo à l'endroit du ministre de l'Intérieur euh, woo ko ci li nga xamante ni moo di responsabilité parce que le monde regarde l'histoire écrit euh, ki nga xamante ni moo di euh, Matar président Ousmane Sonko li mu ko wax leer na waaye itam alerte na ci ay pratiques yoo xamante ne dañ ko baaxoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, ñoom ñoo di waa nguur gi mu di importation euh, importation ak transfert euh, d'électeurs yi nga xamante ne ñi ngi ko jëlee fale nga xamante ne moo di Guinée Bissau gis nañ ko fii ci soor démb xale yi def ci liggéey bu am solo daal di stoppé seen convoi bi récupérer seen ay pièces de lépp loo xamante ne yoroon nañ ko te jaaduwul ñu delloo leen Guinée Bissau fii nga xamante ni même cas bi itam ñu ngi Mauritanienne gis nañ ko itam finalement finalement président mënu fi dugg go go go go may may may may kalaamu moom ay mbiram day jékki-jékki rek départ waaye ñu lang fii xool ba xam li moo ko jàpp waaw président mujjul dugg ci centre bi parce que dafa bëri nit ça risque de perturber le vote en toute responsabilité mu ni nañu dem li ko topp ci mbooloo dafa bëri donc léegi destination kër ga la des amee ah, donc euh, mbooloo mbooloo baa ngi noonu kalaamu bu accéléré rek musibaam mbooloo baa ngi noonu xale yaa nekk détermination ànd ak président Ousmane Sonko gis ngeen njaboot yi gis ngeen euh, famille donc mi ngi noonu euh, Ziguinchor génn président daa voté rek Ziguinchor commencé jubilé lii du ndogu voté lii du ndogu jubilé lii xëdd voté jubilé la Ziguinchor a ngi noonu génn na nit ñi kontaan nañ comme je disais tout à l'heure lii double victoire la ndax président Ousmane Sonko dañ ko génnee woon ci fichier électoral bi à deux reprises justice jox ko dëgg état bi ñu ne duñ ci dal ba li yàlla di dogal tey jamono ji mi ngi génn di voté ji waaye à travers ce vote là c'est ñi nga xamante ni moom moo di askan bi yëpp moom la ñuy waxal que président Ousmane Sonko xeexal na leen xeexal na njaboot gi xeexal na leen xeexal na sénégalais yi ba sénégalais yëpp mën a voté surtout ci li nga xamante ne moo di am droit exécuté def seen droit droit bi nga xamante ne mooy ñoom am nañ droit choisir kan mooy seen président de la république élection un mois de retard waaye am na te ki nga xamante ni moo di tànne fu président Ousmane Sonko di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo nekk favori ñi ngi xaar ay intention de vote entre soixante quinze et quatre pour cent dès le premier tour Diomaye nekk président ñu ni ko Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye mi ngi noonu ñoo ngi dellu këru président Ousmane Sonko di fàttali ni tout au long de la journée mën ngeen suivre actualité électorale bi ndax euh, jamonoy élection ku amul information ñu tëgg la wëndeel jot na jot na TV jot na média dina remonter information yi la page coalition Diomaye président dina remonter information yi lépp lu am ci actualité di ngeen ko am ci page wu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak page wu président Ousmane Sonko. ngi noonu kalaamu bàyyil ceinture bi kalaamoo ngi noonu waaw on bien arrivé chez le président Ousmane Sonko xam naa dañuy arrêté live bi leneen lu mënti am rek euh, di ngeen ko am waaye fii ci Ziguinchor moom daanaka commencé nañu jubilé fii xëdd voté jubilé la duñu xaar ndogu mi ngi noonu buntu kër gaa ngi fees dell ak mbooloo buntu kër gaa ngi fees dell ak mbooloo mi ngi noonu mi ngi noonu exceptionnel exceptionnel Ziguinchor et les Ziguinchorois mi ngi noonu lii amatul ku mën na def kenn rek koy def mu di président Ousmane Sonko jërëjëf kalaamu

Thank you.